2024 te biñ koy jàpp ci weeru koor la biñ koy bàyyi tamit ci weeru koor la yéen kaay bi ne Jomaay Kay ak Ousmane Sonko fa ñoo bokk niroo ay jaar-jaar Le Réveil yéen kaay ne fal gi ñu fal Basiru Jomaay Fay amagum na jéego bu baax boo xam ne def na ko ci wàllu yokkute ci nattuwaayu mbiru koom-koomu Sénégal li ñuy wax prix côté fa yokk fi mu toll nii Libération ne 4 avril bii di ñëw soldaar yi fa ñuy organiser xew-xew boo xam ne moom la ñuy wax prise d'arme maanaam njiiti réew mi Basiru Jomaay Fay fay ñëw ñu rëkkal ko loolu mooy nekk génnam bu njëkk officiel ginnaaw buñ ko falee président ndax loolu fay fekk njiiti fi nekk Macky Sall jébbal ko leng yi le 2 avril le public yéen ne gor ca wax ja Bassirou Diomaye Faye la mu waxoon def na ko mooy tekki na ndomba tànkam démissionné na ci parti boobu di Pastef ndomba tànkam ba moom la delloo waaye fay des di nekk membre simple ndax ñoom seen parti ba Pastef fa ñoo wax ne kenn du boole ñaari fonction yéen bi na ci fàttali njiiti réew mi yëpp terul moo jiite woon APR waaye Diomaye nee na moom du def loolu la sénégalais yi ñu ngi xaar Pastef ngir ñu war koo régler te fii léeg ñetti weer ak lu topp sénégalais yi duñu leen may dara de fa ñu xaar li ñu leen digoon ñu def ko tabb gouvernement bu bees bi nag léegi tey ñu amal ko jomaay fa koy gaawal l'observateur ne man kay faay ragal doxalinu réew meeg dogal yeeg yorin beeg yooyu ak kujje am ci diggante Ousmane sonk ak Bassirou Jomaay Fay dëgg la Jomaay Fay bu nekkee président yàlla ak Ousmane Sonko la waaye ndax si doxalinu réew mi du am fénqalo sa diggante ñoom ñaar beneen bi ci topp xëyu ndaw ñi ak dundu gu cher gi lu naqaree lijjanti la te askan waa ngi leen ciy xaar si du quotidien naka faa la ci yokkal wàllug mbay mi faxe dundee ñu bàyyee ci réew mi bañ a jéggaani ji loolu défi la bokk na fañ ko war a lijjanti mi leen di xaar njiit la Macky waxoon na ne dana ko lijjanti ma nga na di dem lijjanti wut ko Ablaye Wade waxi nopp léegi ndax ñii danañ ko lijjanteem déet laa si ne kaay na lii xaar nguuru ñoom jomaay gii fa bëri de leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne njureefu élection yi résultat yi ñaari million doomu aadama ak lu toftal ñoo wateel yéene kaay moo ñu ko xamal wal fajiri yéene kaay ne gouvernement bu bees bi nag sénégalais ñu ngi koy xaar de diggante jomaay ak sonko ñoom fan la ñuy tàmbalee ak ñi nga xam ne ñoo nar a nekk ay ministre yéene kaay bi ma ngi koy wax la mu wax nag moom maxtaar siise jëwriñ ju ñu dénk wàllu biir réew mi mooy organiser na élection yoo xam ne lépp a jaar yoon ndamal basiru jomaay fay li amul kenn ku ko gam-gam le ñëpp a ko nangu léegi si ko yéene kaay ne mbuqi yi métti yi mbuqi nag amadou ba ak gor tànk ya amoon ca biir APR gars yi ña ngay tuumal njiitire Macky Sall de nee na lu ji njàgg mooy njàgg yow bëgg Macky Sall jàppalewu ko wax na ci a a ko def gars de am xel ñaar loolu andi li yëpp Omar Sow bu Kogère moo ko wax lii yéen moom fa di ñuy wax parcours jaar-jaaru suñ président bu bees bi Jomaay Faye waa CEDEAO yi fa ñoo ndokkeel Bassirou Jomaay ci fal gi ko fal Abdoulaye Bathily fa wax Jomaay na ko liggéey bi lay xaar bëri na waaye nag faa bëgg sénégalais yi ñu bañ a yàkkamti duut fay ñëw rek saafara jafe-jafe yi de déedéet ndànk-ndànk la église bi jàngu bi ñoom fa ñoo wootee ñëpp ànd nekk benn ngir ñu liggéey réew mi ña ko waxee ca GP yéen kaay na Sénégal fa tëj ab xët boo xam ne ci histoire am na ko ginnaaw beneen xët bu bees la ubbi l'évidence yéen na njiitiram Macky Sall li ko dal nii moo ko teg boppam ñàkk na nguur gi ay jege ñaalaam ñàkk nañ ko te dara waralu ko lu mooy ay calcul pexe yoo xam ne fa ko doon pexe Amadou Ba nag fi mu toll nii moom rek ba seen biir bureau de vote ya tut mu rey leen libération moom fa ñoo xamal ne mbootaay réew Europe yi fa ñoo rafetlu organisation bu baax bu rafet bu ñu amal ci élection yi naka noonu CEDEAO seen ndaw yi ñoom it fa ñoo rafetlu wote yi fa jaar yoon le public yéen a kaay moom fa ñoo xamal ne njiitëram Macky Sall le 2 avril bu jébbalee lenga yi Bassirou Diomaye Faye rek fay tàmbali liggéeyam bu bees bi mooy post bi nga xam ne njiitëram bu France moo ko ko fal ca 4P keroog lay tàmbali moom fa ñoo xamal mbir mu yéeme yaaw seetal téeméeri million moom leen sàcc ci ab compte koppare nag fañ koo détourné daal di koy denc tasaare ko ci fukki compte ak ñeent ci benn banque am na fukki nit ak benn ñoo xam ne fa ñoo njort na ñoo ko def bokk na ca nag chefu agence bu banque ba ñuy wax ora banque ca jam ñaajo am na sax ay njiitu entreprise yoo xam ne teg nañ leen ci loxo waa dig ñoo fa jaar fan la aji saar jaar ba daw génn réew mi lii de mooy laaj bi l'observateur ne fa xam xibaar yu ñu joxe na aji saar mu nga daw na def li ñuy wax exil su fekkee xibaar bi wér moo tax mu ne atteem bi diggante mook a gudde contumace lañ woon Sonko léegi fañ leen a war a attewaat xam ana lan mooy dëgg gi ci ñan ñoo ko santoon mu tuumaal Sonko ci lu amut waaye viol ba mu waxoon ne moom la ko def ak menace de mort ba loolu moom attekat yi setal nañ Ousmane Sonko ne ko du dëgg <laughs> leer la neen lu leer ba yegg ca nañ ñi ja mooy ne première dame bu bees bu Sénégal Marie Khone Faye la tudd mooy aawo président Diomaye Faye porterem nag laas yéen moo ñu ko wax waa léegi ñaareelam ba nag ab sa moom nuñ koy tuddee deuxième dame ak ndax fa ñuy aylantoo ca pale ba wala pale ba la ñuy dëkk man daal loolu fa hub sama a léegi te ñu xam nu yëfee demee